day lu naqari mbokki taalibe yëpp di lu naqari mbokki julit yëpp di lu naqari mbokki taalibe sëriñ Saaliw yëpp ndax it nag ku toll ne Seex Saalihu ak li mu représenté ci lislaam limu représenté ci yoonu murit yaakaar naa luñ koy askanale lu rafet rek la war doon lu baax ak loo xam ne day dëgër lislaam waaye jël ku toll ne kooku nga koy askanale ay fooye lislaam fooye julli fooye noddu eh, di jaxase yi góor ak jigéen ñuy fecc ak a tëgg ka way loolu day ah ku mu boo di jullit ku mu naqari wut boo di am murit ku mu boo sëñ boo dee taalib sëñ saariw day kon dara di seetu la ci eh, sëñ saariw kon ñu ngi koy naqar lu baax a baax di sëñ Saliou nag du ko ñuy défendre du ko ñuy leeral ndax moom ab jant bu leer nañ ñi la li mu nekkee woon ñëpp xam nañ ko moom moom yàllaa ko défendre boppam ndax it nag koo xam ne sa dund gépp da nga koy jaay jox yàlla sa dund gépp nga liggéeyal ko sëñ Tuubaa amoo lenn lu neex sa njaboot nekkuñ ci lu neex mosoo képp ku la xam ay daara la la xamee daara yi it nga teg leen ci siraatu mustaqim teg leen ci yar teg leen ci nangoo sonn nangoo jaamu yàlla nangoo sàkku xam-xam nangoo uh, wut yàlla nango liggéeyal uh, sëñ Tuubaa loolu uh, di di la askane lay waxi caaxaan waxi ay kaf ak i fecc ak ree nga xam ne loolu ñun ñun dongay dongaat yi ñi gën a suufee sax ci donga yi tëluñu loolu waxuma nag moom waxuma laa nag di ko def ci waxtu woo xamee ne nitu yàlla danaan yàlla ba bu ñuy tudd yàlla yonent bi sallallahu alayhi daan àgg ci naan arihna ya bilal day bëgg a bàyyi adduna bi delluwaat ci yàlla ba nga xamee day namm googu bu day bëgg bilaal noddu ba mu dem jaamu ji yàlla waxuma laa nag ñi ko donn nekk foofee maqaama yonent bi sallallahu nekkoon di dond ko ca bokk sax laa bëgg wax eh, ñu naan laan eh, dañuy fooyee diine loolu ku ku ñàkki teggin dëgg la kon ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax di ko ànd ak mbokk jullit yëpp di xam ne Serigne Saliou moom euh, tuutal ko kenn mënu ko ku ko bëgg askanale loo lu lu fu mu nekkutoon tamit yaay nax sa bopp rek ndax waxuma ko mu yar waaye képp ku ko mas a ak farata joofa mën di indi ak lum rëy rëy gis nga ne la nga nekk lu mu farata farata bu waxtu nodd jotee dana na tek duutu waxati ba waxtoo jàll mu door a wax te bu julli jotee bam koy man te moo daan jug jiital boppam julli ga ñépp julli maam de ba mënu ko it bu waxtoo ji jotee dana wax ñu jiite gis nga sëñ Abdou Diop wala kenn kum kum wax ca mbooloo mu jiite foofa boobaa moom it moom nga xam ne eh, am na ngantam dana ji julli ca na ko na na na ko na ko sariya maye ndax fa tollu toll boobaa moom dootu mën a jiite ndax ak magam kon ku mel noonu nga xam ne lislaam gépp a koy sago di ko ndamoo ci liggéey bum mu liggéeyal exemple exemplarité am jox gum joxoon boppam yàlla ji jëriñ ji doon jëriñ mi def yi nga koy ñëw di ko di ko taqal ak ak ak suufeel loolu rafetul dara kon kuy caaxaan kuy def lu ne mën koo def kenn du la ko tere loolu neex defal waaye bu ko askanal doomi Sëriñ Tuubaa yi mu des nag beneen atte boo xam ne xam naa ne jataay bi du ñu may ñu leeral ko muy atte way ci ci lislaam ak atte fecc ci lislaam loolu euh, atte fiqu fuqahaa yi am na ci wax xam naa nag jataay bi du ko may kon beneen yoon incha allah bu ko um, jataay yi may rek dañ ci ñëw leeral waaye daal tey li jaroon daal ñu leeral ko mooy xamal ne sëriñ bi moom foo wut wut sëriñ Touba foo wut foo wulu wut Cheikh foo wut foo wulu wut kon képp ku kuy askanoo ci moom képp kuy dox jëm ci moom képp kuy ku koy safoo foo doo foo doo foo wulu wut mu des nag cant cant bay yëngal say cër loolu moom dara newu ca car waaye nag jigéen ñuy way ci kanamu sëñ Saliou ah loolu de ku ko mën a waat cib kaamil moom moom man nga euh, jàppal ne sa sa sa euh, euh, desalatoo yàlla dara daal desalatoo yàlla dara jigéen yëkkati kàddu jigéen ci kaw di way ci kanamu sëñ Saliou ay góor jigéen di jaxasoo ci kanamu sëñ Saliou di taasoo ak yëkkati seeni kàddu loolu de ku ko mën a ku ko mën a saxal rek mooy yow desalatoo dara sëñ Saliou li ci des nag jur di guddali wax sëñ bi moom kenn mënu ko yàqal kenn mënut a yàqu deram Euh, fi mu yar nit ñi leer na fi mu tegoon nit ñi leer na te lam lu mu teg nit ñi moo jiitu moom waxuma la moom jëmmam ja waaye ku mu yar am na yoo xam ne seexloo nga ko lu neex sax yow dootu la safati yàlla xam na ne de am na ci <laughs> ñoo xam ne dugg hôtel bis dañoo tukki dem ci bitim réew bis bañ njëkk a dugg hôtel sax dañ ko da leen a jaaxal